Heavy Mess.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 mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sàkk ki saafara waaye nag jàngoro yi réew mi moom kenn saytu ko ba ki sakk saafara moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Sédhiou day na war ab waaye daal moo fa tukki woon naka noonu waaju bi muy waaj a ñëw mu yónnee xaalis bu takku ay waajuram ne nañ ko takkal soxna naka noonu waajur yi jël xaalis bi takkal ko soxna gannaaw bi ni ko takkalee soxna ba soxna si ñëw si kër gi nag bu gorom bi nekk ci biir kër gi tàmbalee raasaatu soxna si ñoom ñaar di ko jël ci suuf ba ndog-ndog mujj ko cee dal ëpp tëlaw si jële ci ëmb pop pop pop bi bi mu xamee ne soxna si jëlee na ci ëmb buub ay bagaasam la def ne may ba fi mu ne kenn gisu ko hmm, ma ne ko kii kay dootul dellu si moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca kabe mer romb na doy war ab waay tamit bi nekk bitim réew la fa xaritu benn bakkana mbal soxnaam <laughs> waaw ñii moom leen dal mbir mi mu ngi xewee ca village bu ñu naan ceppe nekk ca commune bu kabe mer waa ji xarit bi dafa tukki woon xaw a yàgg ci àll bi naka noonu bi xarit bi dellu ci la seetlu gis ne soxna si dal changé na waa ji bi mu soupçonné soxna si ci la ko jëlee yóbbu ci benn district sanitaire bi mu jëlee ndaw si yóbbu ko ci district sanitaire bi à sa grande surprise ci lañ ko ndaw si dafa ëmb te am na ñeenti weer pëtalaw waa ji bi mu yëgee nouvelle boobu addunaam da doon waaj a tukki bi mu laajee soxna si nag waa ko def beneen surprise bu gën doy waar dal ci kawam ndax ndaw si daf ne ko fs di sa xaritu benn bakkan moo ma ambal ndaw si nee na waa ji daf koo invité ci këram bi mu ko invité ci këram ci la ko séquestré ba noppi violé ko pop pop ndaw si nag nee na lu tax mu bañoon koo wax dafa yaakaaroon ne bu ko waxee kenn du ko gëm ne ko xaw naa yomb nag de mbir moomu nag bi mu xewee xam nga rek réalité sénégalaise ñu bëggoon koo def yëfu masla ay bonne volonté jóg di ci dox ci suuf waaye fami xale bu jigéen bi lànk ba tëdd ci naaj bi la ñu def ne li xew moom foog ñu ragg seen deru doom ma ne ko nag moo gën de naka noonu ci lañu ñu porté plainte ñu dal di jàpp waa ji yóbbu waa ji tamit ci kanamu yoon nangu na seq nag jabaru xarit bi <laughs> ah bon waaye def ci teg ne violé taxawu ko ndaw si ci boppam moo ko yàgg tante nga ni di ko serse bali xew mujj xew seen diggante haplo na nag fi mu ne mu ngi jégglu di rëccu ndax it jiina xaritam boobu loo xam ne mu ngi koy rëccu ba fu rëccu yem <laughs> ma ne ko nag day fii mooy Sénégal jigéen dal li mag ma waxoon rek jigéen wilaaya ak martaba yeggu ci moytu rek waaye Sénégal da ngay gis diw du sa jabar sa jabaru xarit la sa jabaru grand frère tappante lëkkaloo àndandoo bokk néeg caayin te foofu lu ne dafay mën a xew mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje alxamis ci yeneen xibaaru buzz